Thank you. alors euh, ñu ngi ci action conscience euh, paate war a def continuité di birum euh, consommer local et tout mais nag wax ci ñambaasaale li nga xamante ni moo di France Afrique di mhm. autant de sujets yu nga xamante ni wax na ko waxtaanee wax fi dalal ki nga xamante ni moo di Arouna Niang il est le président de l'association des jeunes éveillés du Sénégal maanaam ndaw yi nga xam ne jamono yi daal noo e yeewu fii ci réew mi ñu lay ziar bu baax a baax bàyyi la nga nuyoog askan bi. ñu ngi delloo ziar ñi ñu ngi rafetlu invitation bi. di di remercier son frère Pape. di di ñaanal yàlla Sénégal mu jàmm yàgg fee am. parce que ni muy doxee nii bu jàmm amulee du baax. lii xeeñ mooy loolu daal. Mm. yàlla baax na. <laughs> mais mais déjà. Euh, Euh, saluer un peu sa disponibilité parce que donc euh, je pense ça perd moins d'une sinon quelques jours lañ programmé lii nii donc mm. euh, il a décidé de venir et véritablement donc c'est pas donné à tout le monde donc déjà mu am activité yu mu war mm. et donc mu mu mu il a jugé nécessaire en tout cas de venir participer à l'émission mm-hmm. merci beaucoup déjà Aruna bon ginnaaw buñ la nuyoo ba pare donc alaaj bay Babacar Sène moom ah. sama sama sama xarit le de la toute nouvelle génération ah. <laughs> alors may euh. ça c'est un jeune garçon boo xamee ne que mhm. xoolal maa ngi naan jeune garçon mais ni sama rakk laa wax <laughs> doy nga waar. <laughs> dama dama dama dama ko seetlu on s'est on s'est à travers les réseaux euh, donc sur TikTok. Mhm. nga xamee ne ñu bëri foog nañ ne que ndeysaan donc euh, pratique gu TikTok mën na dem ba mu am lu mu lu mu engendré ci sa évolution intellectuelle yu demee noonu. Mhm. mais ñun on s'est retrouvé foofu noonu. Mhm. alors mu mu mu follow ma follow alors euh, ma gis li muy développé donc si biir ay contenu yu mu def yu yu nekk ci ci ci réseau social boobu alors donc ñu ñu waxtaan ba juboo ci biir ay kàddu mhm. mais lan moo tax au vrai sens ma ma accepté moom mu mu ñëw ci plateau bi parce que dafa am ay ay ay sujets yu yu délicat yu muy yu muy traité et à travers donc euh, Sen TV nga xam ne fa lay faral di def ay chronique am mhm. alors euh, ma ma ma accepté ko ñu waxtaan déjà ci France Afrique mais balaa ñu jëm foofu mhm. maa ngi lay wax ne que dama commencé woon benn chronique portant sur euh, alors lu ñuy wax le consommer local. Mm-hmm. on a eu que ñu wax ci responsabilité état par rapport à cela. Mm-hmm. pour mën a taxaw ñi nga xam ne ñoom ñooy alors euh, ndaw ñu nekk Sénégal li di liggéey donc euh, bu ñuy wax di liggéey mooy les les entrepreneurs ñi nga xam ne ñu ngi ci suuf di jéem def dara. Mm-hmm. xam nga ak ñi nga xam ne ñoom ñooy état naka lañ war a mën a def ba am pour support ñooñu wala taxawu leen am ñu leen taxawoon lu weesu histoire. Euh, defar cadre de vie bu bu bu bu yemale mm. donc déjà une vision un peu large de la responsabilité de l'État mm. ak assistance bi war vers ñi nga xam ne ñoom ñooy le le jeune entrepreneur sénégalais mm-hmm. waaw Pape nuyu naa la mm. encore une fois mm-hmm. di rafetlu euh, témoignage yi nga jot a développé mm-hmm. tey suñ doon def d'une vision large comme ni nga waxee benn diagnostic de ce qui se passe dans ce pays mhm. d'abord il faut il faut partir un peu de l'histoire de la géographie avant nga ñëw ci socio-économique wu euh, activité entrepreneuriale mhm. surtout muy toucher la jeunesse mhm. ñu nekk dans un pays bu nga xamante ni son PIB est faible ñu classé nous parmi les pays les PP les PPTE les e, e. pays pauvres les plus endettés bokk aussi ci paiement les pays les moins avancés donc ci natt bu baax ñu am une population très jeune. 68 mhm. virgule 7 pour cent de la population sénégalaise amuñu 40 ans. Exact. donc ñoom ñoo toll ci liggéey. Mhm. ci biir centage boobu noonu ñi am 25 ans yi am moins de 25 ans yi ñoo ëpp. Mhm. mooy ñi am 15 à 25 ans ñoo ëpp. état du Sénégal di former chaque année plus de 150 000 diplômés mooy ñi am BFM CAP CEP BT BTS licence master doctorat moom. mille 000 35 mille lay jël chaque année. Mhm. privé bi jël peut-être yeneen vingt mille et quelques. Mhm. donc y' a boo def soixante y' a y' a cent quarante mille wala cent trente mille jeunes yi nga xamante ni. Mhm. dañuy aller vers l' entrepreneuriat. il ils vont de de de conjuguer le verbe se débrouiller. Ah, tous les jours pour xool ni ñu ci génnee donc bu fekkee yow tegoo ay mécanismes yoo xamante ne renforcer non seulement système éducatif bi pour nga mën a ramasser ñooñu ñëpp mm-hmm. parce que le marché de l'emploi ñun ñuy jàng ci université yi wala ñu ñi génn ci université yi école de formation yi mm-hmm. du li jàng la ñuy fekk dans le marché de l'emploi mm-hmm. souvent problème bi foofu lay commencer après nga génn dem taxawaat di di wut xëy parce que xëy dañ koy du lu nga xamante ne da ngay toog mu dem jox la da ngay jàng na la naka la amee liggéey. Mhm. mécanisme yooyu noonu boo demee école fekkoo ko fa. parce que di jàng ba master soog a xam ni ñuy bindee CV. Mhm. soog a xam ni ñuy bindee demande. soog a mën a xam yenn yi. Mhm. la la première chose bi may njëkk rectifier lu le plus souvent mooy. ñu bari dañ demande d'emploi. alors que à la place de demande il faut mettre candidature à un emploi. parce que le alors que yow tu tu proposes tes compétences mhm. en retour ñu la jox salaire donc da ngay candidater pour un poste mhm. ces termes mécaniques yooyu déjà à l'école rek c'est pas encore réglé mhm. boo génnee dans le marché de l'emploi aussi nga fekkaat fa beneen affaire bu nga xamante doxul léegi le marché de l'emploi souvent di di rencontrer ak de problèmes yu nga xamante ni état bi moom moo tegul mécanisme bi war a tax jeune bi bu waree génn entreprendre mu yomb ci moom ñun 84 pour cent de notre est porté par des firmes étrangères ça veut dire que bu dee lu ñu liggéey 84 pour cent yi day dem mhm. benn 16 pour cent moom fa ñu des entre sénégalais mhm. maintenant l' entrepreneur sénégalais moom mu ñëwee mhm. pour investir état bi du ko faciliter l'environnement bi alors que entreprise étrangère bi moom bu ñëwee mën na sax bañ a fay ay tax ak ay impôts gis nañ ko fi en pagaille bari na donc même bu la waxee APEX wala chambre de commerce boo ñëwee en 48 heures ñu jox la sa NINEA ak sa registre de commerce nga commencé say activité am na à côté benn entreprise tubaab bu nga xamante ni ñëw na. Mhm. jaarul foofu yëpp en deux heures de temps ñu montel ko dossier mu commencé di exercer commencé gagner marché di liggéey. donc bu fekkee yu mel noonu moom la ñuy rencontrer suñu dëkk. Ah. consommer local boobu ngay wax noonu day nekk lu nga xamante ni lu jafe lay doon. parce que tey ñu jël ko ci der bi uude bi. Mhm. consommer local la da dem ngaay ñu tubaab bi dañuy ñëw ngaay italien yi. Mhm. dem jënd dàll bi. jënd ko noonu produit bu pare ah. Mhm. yóbbu Italie laal ci seen benn siir bu gën a baax. Mhm. dàll bi gën a tàkk. Mhm. ñu ñu tamponné ci made den Italia. bu buñ ko jëndee quinze mille francs fii à Ngaye buñ ko indee jaayaat ko vingt cinq mille wala cinquante mille. ci benn marque bu ndaw rek buñ ci def. indiwaat ko maintenant protection boobu noonu. liy dooleel noonu euh, le producteur local. kooku état liggéey état la état moo war a def loolu. c' pas à l' état du travail. mais c' à l' état raffermir c' à l' état de nous faire euh, bon cadre. Mm-hmm. pour que après ñun ñi entreprendre ñu mën a a am environnement bu sain. Mm-hmm. parce que ñëpp mënunoo ànd xëy ñëpp mënunoo xëy ci bureau. ñëpp mënunoo nekk ci dans le cadre professionnel. Mm-hmm. il faut que am ñu bàyyi am ñu nappi am ñu jaayi. am ñeneen ñu nekk ci jën yeeg ñi nekk ci ginaar yi ñi nekk ci euh, beneen point bi mooy il faut que état industrialiser système économie gu Sénégal parce que liy dimbali nit ñi mooy mu mettre en place des industries. Mm-hmm. mën a def di recrutement. Mm-hmm. maintenant bu fekkee amuñu une forte industrialisation. c'est normal que nga gis chômage bi di bari parce que mm-hmm. PME PMI yu bari tëj nañ. entreprise yu bari tëj nañ mais souvent quand on nous dit que l'État n'est pas n'est pas n'est euh, dans l'obligation de créer des emplois mais mu créer donc euh, benn cadre de vie environnement boo xamee ne que alors les les investisseurs bu ñëwee nañ ci fekk lu ñu lu ñu mën a def seen xaalis seen xel dal donc loolu c'est une affirmation à à ah, ah, waaw donc moom État bu fekkee mettre en place les mm-hmm. mécanismes mm-hmm. c'est pas li ñuy wax li foo côté boobu c'est pas État mooy jàpp nit ci loxoom mm-hmm. naan la am xëy mais état moo am droit par exemple defar tali. waaw teg ay hôpitaux. Mhm. créer ay usines créer entreprise créer ay industrie mhm. léegi teg école mettre en place ay professeurs ak ay jàngalekat bu nu paree ñu dem. Mhm. aller directement dans dans dans le marché de l'emploi. maintenant mécanisme yooyu noonu yëpp moom mettre en place. donc du coup pour ñu régler problème mu. consommer local boobu noonu. day am problème day am problème parce Exactement. que. du du du du da ñëw rek voilà dem ci produit bi ni produit baa ngi nii jënd ko bu doon loolu la du doon problème. Mhm. mais cheminement bi muy jaar ba nekk un produit fini ba nga mën am confiance. Mhm. pour mën a gëm ni bii moo gën bii. Mhm. déjà politique marketing boobu noonu sax état bi du ko def ci produit. et puis ce qui est bizarre ce qui est bizarre moom mooy alors tey l' encourage alors euh, l' entrepreneuriat. c' dire mhm. bu ñu waxee loolu ñu ngi ñu ngi bàyyi xel ci yenn ci ay ci ay agence wala bureau yoo xamee ne mhm. nañ ko def quand on parle du bu ñu wax si si DER. bu wax si ay fonds GIP fonds GIS nga xam ne dañ koy teg pour un peu garantir donc les investissements wala boog ah. xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy jox euh, ndaw ñi ak ay ANPEJ ak yeneen yu demee noonu. Euh, maanaam paradox bi moom mooy tey bu fekkee ne que da ngay am pour euh, euh, encourager l' entrepreneuriat alors que yow mi nga xamee ne tu fais yaa ngi def promotion entrepreneuriat boobu sax yow tu n' encourages pas le mm-hmm. sénégalais. Mm-hmm. ou bien tu tu n' encourages pas le jeune pour que mu continuer ci dimension mm-hmm. entrepreneuriale boobu noonu. pourquoi parce que maa ngi koy wax bi ñu bi ñu fi nekkee le jeudi passé parce que seulement l' état pas le produit sénégalais. l'État ne consomme pas sénégalais en quelque sorte comprendre mhm. donc su may su may wax loolu may moom mooy euh, maa ngi jël exemple chaque jour donc euh, mhm. équipement wu euh, bureau ministère wala direction yi nga xamee Sénégal moo moo moom la am mhm. boo fa demee doo fa fekk maanaam Euh, table boo xamee ne exemple lii nga xool xam ne menuisier sénégalais moo ñëw mu teg daaj ko mm-hmm. Mm-hmm. ba mu normal mm-hmm. doo fa demee doo gis ay tableau yu nga xamee ne que c'est made in Sénégal exemple tey nga gis koo xamee ne que exemple voilà euh, le monsieur Kassela moo ñëw def def def dessin bi ñëw andi ko c'est c'est c'est assez rare euh, du duñ fay faral di gisool c'est pour dire que mu ngi encourager bien évidemment donc l'entrepreneuriat mais moom wàllam defu ca la ca war mhm. c'est-à-dire jëlul alal ji nga xamee ne mu ngi jógee ci biir askan wi mhm. mu dugalaat ko ci askan wi mais da koy jël mu dem en Inde wala mu dem Chine wala mu dem Italie wala mu dem ci beneen dëkk importé fa ay yeneen ci ay produits yoo xamee ne wala mhm. bokk ay ay meubles yoo xamee ne ci dëkk yooyu la ñu ñëw ko dugal ko euh, pour ñuy ñooñu di liggéeyal sénégalais foofu la paradoxe bi gën a nekk mais Pate balaa ñuy wax état aussi est-ce que changement bi ça doit pas dañuy gis des produits locaux yu nekk fii mais dañuy préférer jéggaani mhm. xool euh, lu leneen lu nekk à l'extérieur même yëre yi ñuy sol sax da ngay gis que yenn yi la ñuy préférer yenn yi nga xamante ni xëy na fii dañ koy dañ koy fàggoo mhm. aussi je pense que état am na ci mhm. part mais au niveau personnel aussi ñun aussi am na lu ñu ci war a def si balaa may ñëw ci ci li mu mujjee wax par exemple ay DER euh, mooy structure de l'état yooyu noonu xam nga déjà bu ne euh, direction à l'entrepreneuriat euh, rapide. Mm-hmm. déjà l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. loolu moom mënul nekk. <laughs> déjà ci terme yi dañuy créer slogan ay mots yu neex. Mm-hmm. ci nopp ci mm-hmm. dégg nii mais loolu mënul nekk. mënoo mënoo aller vers l'entrepreneuriat. ci ci ci ci ci trois semaines ci deux jours. trois jours mënul nekk ba pare. idée bi ñu ngi ko jëlee woon sous Diouf Abdou Diouf tegoon na fi lu lu tuddoon noonu mais diir la woon. diir initiative euh, à la recherche de l'emploi mhm. direction de l'initiative à la recherche de l'emploi DIR ñu ñëw vingt ans trente ans quarante ans après indi benn DER teg ni bon xoolal ni mu mujjee financement yëpp lekk nañ ko mhm. parce que ku mosul téye deux mille francs wala ku musul téye vingt mille francs nga ñëw jox ko deux millions moom déjà il s'est pas préparé à mm-hmm. travailler mm-hmm. kooku jikko sénégalais bi la soo ko joxee iPhone la ciy njëkk jënd wala mu jënd ci dàll tuwa yi sañse si wala lekk ko après mu jeex boo waxee mun a xaalisu nguur bi la sama xaalis la mm-hmm. du mujj fenn du ma fay état bu la waxee ñaata la war a recouvrir c'est des dizaines de milliards la war a jëliwaat ci der ci li mu defoon noonu c'est que mooy comme li ñu def ci transport bi rek auto accidenté tey nga xëy génne ay vingt toogaat deux jours après ñooñu grève nga wàññiwaat commencé waat mesure dañuy taf yëngal pilotage à vue def <laughs> on n'a pas fort mm-hmm. donc moo waral loolu mooy feeñ ci secteur yëpp ba feeñ ci ci de l'emploi bi de mm-hmm. l'entrepreneuriat bi ak mm-hmm. consommer local bi tey boo boo jëlee tey lii lii lii soxna Salma li Salma mujjee mujjee wax ci mm. ci comportement ak jikko sénégalais daf ci am lu jiitu comportement bii ñuy dund tey dafa am lu ko jiitu. lu nga xamante ni yi ñoo ko sabab mu arrivé leen damay faral di joxe ñaari exemple wala ñett. ma joxe ci benn exemple bi war a tax sénégalais bi dem na ba mujj gëmatul consommer local. gis nga daf ci am ay réseaux sociaux. yoo xamante ni seen liggéey c'est vendre des produits. Mm-hmm. comment su ma jëlee exemple Facebook. Mm-hmm. boo seetloo li ngay faral di bëgg yow souvent moom la la Facebook di pro ak ak YouTube di proposer lan moo tax mu la koy proposer c'est parce que moom teg na ay algorithme yi nga xamante ni say pensée lay dépendre pour xam yow ci lan ngay yëngu ci li ngay yëngu loolu rek la lay indil léegi tey boo jëlee entreprise bi nga xamante ni. Mm. day jaay affaire de cosmétique. Mm-hmm. esthétique femme. dafa xam ni la fille ou bien la femme sénégalaise. Mm-hmm. dafa bëgg lu pare. lu rafet lu bees lu jigee bitim réew léegi entreprise boobu day liggéey ak Facebook comment Facebook mooy ñëw ni ko am naa dëkk bu nga xamante ni boo leen jaayee sa produit bi man mën naa def de telle sorte que day jar mënu mm-hmm. ko donc jaayal ma leen ko léegi jaay bi mooy moom day fexe ba publicité yi ngay def publicité yi muy def ak idée yi mu lay jox ça tourne autour de yow produit boobu noonu ngay bëgg mm-hmm. léegi mooy ñëw defal ko benn rapport ni ko la sénégalais il est comme ça elle veut ça ça et ça et soo ko jaayee produit bi nga dindi ci lii yokk ci lii moom dana ko jënd parce que moom mi ngi xëy chaque jour nekk écran sunu kanam mhm. di xool suñuy habitude ak suñuy jikko bu fekkee yow boo yoree cent franc connecté mhm. donc moom du cent franc boobu la soxla de mais données yi lay jaay te données yi ñoo ëpp xaalis. exactement donc données bi muy jaay mooy peuple bu ne am na vision am na façon am na nu muy def. xam nañ ba dem nañ ba xam ni sénégalais gëmul local. Mhm. donc dañ koy imbimer ci affaire étranger. fexe ba mu nekk dans le cadre lu jigéen bitim réew moo gën. Mhm. li nekk ci réew. loola mhm. waral italien bi day ñëw jënd dalu ngaay bi dem yóbbu ko tamponné ci made in Italia. wala mu tamponné ko fii indiwaat ko wala du sax paas du sa dugg avion da koy indiwaat da ciy def tampon bi rek jaay ko ci ay parce que xam na ni sénégalais bi loolu lay jënd. par rapport ak benn peuple ak ak benn citoyen américain boo xamante ne dafa critique mhm. soo ko joxee produit danaan la lu tax bii gën bi mhm. lu tax yow nga war a indi man sama produit yow Huawei lu tax nga bëgg ma jaay Huawei ci kaw iPhone. Mhm. def moom ñoom ñoom ñoom seen culture mooy man d'abord. mais loolu dañ ko ko jàngal bi muy nekk xale. le jeune américain bi muy nekk xale. bi muy am ay trois ans deux ans dañ ko jàngal. yaa mën yaa yaa jiitu. yow la ñëpp di roy sa dëkk moo jiitu dëkk yëpp mhm. kooku bu màggee day gëm loolu parce que day gis ni ñëpp ngi daw vers Amérique donc moom day am mentalité wu je le meilleur Exactement. je suis même le représentant de Dieu terre mm. mais ñun fecc ak way lañ ñuy jàngal ak jàngal gaaw tukki dem xool noo dimbali jee say wayjur donc kooku bu fekkee dafa am lu jege ci biti ñëw kooku loolu lay promouvoir que li nekk ci biir looloo tax si Sénégalais bi dem ba mujj gi mu am comportement foofu nga nekk foofu la barastikoo ah, ñu dem ñu dem ñu dem dugg ci mhm. alors euh, li nga xamee ne que moom mooy moom euh, li ñuy wax le le France Afrique xaw ma naka lañ ko mën a tënkee daal France Afrique xam nga mhm. c'est-à-dire c'est boo xamee ne y a certaines personnes yoo xamee ne buñ ko déggee rek sama genre ki dañuy xaw a ruus daal dañuy xaw a c'est comme ñun no suñu dund dafa dépendre ci Afrique ci euh, France au vrai sens quoi xam nga donc euh, euh, te munu mënuñu ko mënuñu ko nier dans une certaine mesure quoi économiquement xam nga c'est comme si France moom mooy suñu poumon quoi moom mooy bës ñun inspiré mu bàyyi ñu expiré c'est quoi le problème xam nga Sénégal ak France mhm. histoire moo leen lié ça fait plus de quatre cents ans léegi mot cinq cents ans sax mm-hmm. ba bay xool parce que avant y avait portugais mm-hmm. après les portugais les hollandais mm-hmm. espagnols yi ak anglais yi dañ fi jaar rek finalement français yi ñëw def naa ko sama benn émission ma ni luy wane ni la présence de ces trois nations da jël ci ay turu dëkk ngay xamee ni peuple yi jaar nañ tey Rufisque Mm-hmm. Rio ça vient de Rio Fresco mm-hmm. mooy euh, rivière fraîche. waaw rivière rivière fraîche. Mm-hmm. loolu terme portugais la. li wane ni la présence portugaise était à Rufisque. la présence française da nga koy noter à Dakar et à Saint-Louis. Saint-Louis Ndar la tudd. Euh, Faidherbe moo changé tur bi pour rendre hommage au roi Louis XVI. moom ville natale en France Saint-Louis la tudd. moo tax Saint-Louis am na France am na États-Unis am na Sénégal euh, Dakar mhm. premier village bi situé woon à Wakam mhm. waa Kamb ba Wakam dafa nekkoon pant ñu tudd leen waa Kamb waa mhm. benn garabu Dakar moo fa nekkoon donc comme ni nga naan damay dem Sandaga garabu sànd la wala damay dem guy ga garabu guy damay dem Dakar ga hmm. léegi le mot Dakar vient de Dakar bon tubaab ak pël ñoo yem mun ñu wax ay kër la ñuy wax donc mu indi déformation kë mais Gorée mooy montrer la présence des Hollandais à Dakar au Sénégal parce que lu mot Gorée ñu bari dañuy jàpp ni mooy goreel mmh. walla kii dafa Gorée mmh. mais moo boobu ça existait même avant l'esclavage mmh. Gorée la tuddoon tuddoon amoon na île île bi amoon na tur mais tuddoon na Gorée avant l'esclavage Gorée mooy un bon euh, lieu une bonne place dans le terme flamand mooy hollandais bu jiitu bi bu yàgg bi donc loolu mooy wane ni fii amoon na présence yu ñii mhm. amoon na ak Sali Porti daal amoon na Sali amoon na présence portugais amoon na présence kii mais après la France moo ko mujjee moo mujjee ñëw exploité après jël tout le pays exploité ko def ci colonisation impose impérialisme mhm. ñuy daw plus de quatre cents ans ñu nekk ak moom mu teg ay accords yi nga xamante ni mhm. France Afrique Sénégal mooy bunt bi parce que Sénégal moo gën a stable politiquement moo gën a moo gën a dal géographiquement amul ay montagnes ak yooyu c'est un pays très calme et très stable boo xam mën nga ci investir ba pare les Sénégalais sont éveillés mhm. mais ne s'occupent pas trop ci yenn affaire politique yeeg yooyu noonu mhm. ils sont à la limite ils sont éveillés mais passifs mhm. duñu ay nit ñu violents duñu ay nit ñu nga xamante ni dañuy xeex parce que waaw parce que parce que sunu dëkk dafa am peut-être baatin bu ko lal ak ay mag ak ay ay kóllëre ay damalante yooyu noonu sunu sunu tradition moo tax ñu sénégalais dama mujj gi mu dal. Mhm. mais doful yeewu na yeewu na xam na lu xew. Mhm. xeexam wala jugam moo gaaw léegi comme français yi xam na loolu ñoom ils mettent en place benn mécanisme bu nga xamante ni pour Afrique bi yëpp la mais ci Sénégal la ñuy jaar. Mhm. quatorze pays la France am yi nga xamante ni ñu ngi dans la zone franc. mën nga ci sax boole Madagascar ak yooyu ñu nekk quinze pays yi nga xamante peut-être ñoom ñëpp. franc CFA la ñuy utiliser. mu nekk un marché de plus de trois cent millions d' trois cent millions d' habitants ñoom ñëpp nga leen defaral xaalis ngay arrimer seen billet di ko di ko def di ko def ci ay avion indi ko banque BCEAO ñu jàpp ni xaas bi fii lañ ko defaree fekk xaas bi France lañ koy defaree indil ñu ko fii léegi naka lan nii defaree la xaas bi mooy yow senegal mm-hmm. lan nga am nga ne ko man am naa gerte mm-hmm. am naa suukar si ses CSS mm-hmm. wala am naa tuuti zircon am naa or Sabodala France nga jox ko yow sa ressources France nattal la ni la lii nga ma jox ni lii la tollool ci biir ak ci pièce amul benn mécanisme buy wane ni yow sa or bi mhm. am nga ko garanti beneen ni ko man am naa lii Ghana euh, Burkina ni ko am naa lii Mali ni ko am naa lii mu jël ñoom li ñu am yëpp ni leen dinaa leen ci defaral temps de billet wala temps parce que yow li nga ma jox nii lii la tollool d'accord looloo waral billet yi parfois ngay gis yi am S yi am D mhm. yi am K boo xoolee bii billet deux mille yeeg mille francs yeeg cinq mille day am benn lettre bu ndaw bu ñu def si suuf. waaw en noir. comme li ko Bénin jox Burkina jox ko Mali jox ko jox ko suy suy suy arrimer billet yi. Mhm. li ko Bénin li ko beneen jox tolloowul ak li ko Burkina jox. Mhm. ci ressource si revenu ci ressource am li ko mhm. senegal aussi jox tolloowul. pour bañ a ci tirage bi ku ne dalay defaral benn numéro rek pour que après ñu ni bon Sénégal moo war a am loowu deux mille yi toll nii. France euh, beneen beneen moo moom li Mali moo moom li kii moo moom li ñu yàpp ko ci avion indi BCEAO mais bu lay jox moitié bi la lay jox du la jox lépp. pourquoi. da nga naan ko man sama budget ren 6000 milliards laa soxla da lay jox mille en liquidité ni la yeneen 3000 yi dama la koy réserver maa la garanti yow. heure boo ñëwee boo soxlaa nga ñëw jël ko te suuf pare nga koy jël te boo ko jël day def am day am taux ak intérêt. ne doon nekkatul échange. nekkatul échange xam nga loolu nooteel la. Mhm. maintenant ba pare moo am ay accords yoo xamante ni France ak franc CFA ñi franc CFA dafa am ay accords secret moom la Assimi Goïta bu Mali dindi woon neuf yi si onze yi. si si accords yooyu noonu daf ci am ay accords yoo xamante ni lépp looy jaay. Mhm. balaa nga koy jaay. xam nga consommer local bi ñëw eh. ak lépp looy jënd balaa nga koy jé jéggaani wala nga koy jënd laaj ma man ba pare mm. su ma ko amulee sama entreprise amu ko sama doom amu ko ma recommandé ku la ko jaay waaw waaw léegi bu nu léegi bu nu jugee nii peut-être peut-être Ousmane Sonko mën na régler problème mu Sénégal Bougane Gueye mën na régler problème mu Sénégal. bu ñuy wax loolu loolu mën nañu wax maanaam le partenariat bilatéral bi ñuy faral di wax. amul dañ ko tuddee bilatéral mais amul nooteel la xam nga la mooy bilatéral. bilatéral mooy man ma indi genn wàll nga indi genn wàll ñu jàpp. Mhm. mais bu fekkee yow sa économie 84 pour cent yi dañ ko contrôler à l'étranger say entreprises yi gën a mag. pour bañ a tudd seen tur yi. ci mhm. télécommunication transport ak lekk ak naan ak lépp sax France la. Mhm. Mhm. donc à quand la ñuy jugee ci domination bi nii gis nga sous domination ak exploitation la nekk. nous sommes pas indépendants. léegi yaa ngi nekkoon ci. alors euh, question de de nguur yaa ngi wax euh, ndax Ousmane sonk mën na wala kesu ce que tu foofu dama bëggoon ni problème mu Sénégal du nit moo koy régler. mais sénégalais yi ñoo koy réglé. du régime moo koy réglé du moo koy réglé. Mm-hmm. sénégalais yi ñooy àndandoo d'accordandoo par exemple ci jëm ji ni Pape Meng yow lañ gëm wala yow Ousmane Sonko yow lañ yaakaar. Mm-hmm. mais ci kaw projet bii. Mm-hmm. du yow yaay doxal. mais ñun peuple bi yëpp ñooy àndandoo d'accordandoo ci benn système may la doole pour que booy génn France CFA. wala booy génn UEMOA wala booy génn France Afrique ñu bañ def coup d'état. am na koo xamee ne que dafa souligner mu ne. Kadhafi a signé sa mort du mois où il a initié alors une monnaie africaine. waaw boo koy tudd. waaw ñu lay éliminer kenn du ko tudd parce que la France sans l'Afrique occidentale sans l'Afrique française. Mmh. sont ces quatorze wala quinze pays. et vingt sixième puissance mondiale. day régresser. vingt sixième lay jël France mooy cinquième. Mmh. mais vingt sixième lay jël bu boobaa day am vingt rangs. wala vingt et un rangs de derrière ay Roumanie dëkk yooyu sax ay Maroc a koy raw mm. parce que du ressource bu mu am suufam mm-hmm. mm-hmm. ressources yi am yëpp France mënul nekk parmi les meilleurs producteurs d'or dans le monde mm-hmm. fan la ko jële mais l'or or bi mi ngi koy jëlee fan mi ngi koy jëlee Mali Kidal Tombouctou uranium bi mi ngi koy jëlee Niger Burkina euh, Sabodola zircon bi ñuy wax ak le pétrole et le gaz ñi ngi koy jëlee Sénégal et autres mm-hmm. donc si la France est suffisa suffisamment riche mm-hmm. c'est parce que derrière la France il y des colonies yi nga xamante ni dafay servir di ko il faut il faut véritablement mm-hmm. non non non fort quoi moralement ouais. et puis audacieux parce que nous on n'a pas un problème avec le, le peuple sénégalais n'a pas de problème avec le peuple français il faut le dire. foofu dañuy demalante dañuy dikkalante. ku mm. am bourse dem jàngi France da ngay dem mm. ku mën a voyager da dem France. Mm. parce que nous sommes nous nous l'histoire et autres. Mm-hmm. donc on n'a pas problème. avec les Français. Mm-hmm. mais on a problème avec le système politique que la France a instauré. Mm-hmm. et que ses gouvernants dirigeants africains. di appliquer ci kaw ak sur le dos des Sénégalais. mais euh, slogan yi ñuy faral di dégg ay France dégage. branche bu jógee fii genre yooyu noonu est-ce que tamit ay slogan yu yu yu baax la. bu ñu xoolee euh, rapport yi nga xamante ni réew ak réew sekk nañ ko euh, surtout Sénégal ak France est-ce que du rek dañu war a wax comme li nga wax léegi nañu xoolaat euh, relation wala coopération yi nga xamante ni mooy tënk réew ak réew def coopération gagnant gagnant. Mhm. comme ni ñu koy waxee d'habitude mais pas di wax ay slogan yoo xamante ni c'est un peu dangereux aussi. xam nga xam nga xam nga les Guy Marius Sagna mm. les Daouda Gueye de Pikine. Mhm. ñooñu c'est des personnes yi nga xamante ni. jeunesse bi dañ leen amel njukkal. xamul tax ñu amee leen njukkal au moins ils nous ont aidé. savoir à éveiller à avoir l'audace xam li xew. mais comme li nga wax mu bañ a nekk ci discours kese. mais mu accompagné wu par des actes. gis nga France dégage ay Auchan dégage ay Total dégage yooyu yëpp. Mm-hmm. Mm-hmm. tant que le franc CFA le problème du franc CFA avec les accords secrets. Mm-hmm. sont pas réglés. du ñu jigee ci li ñu nekk. Mhm. tant que les accords peut-être que prochainement je viendrai avec les accords parce que onze la mhm. tant ces accords secrets là mhm. et la charte de l'impérialisme bu nga xamante ni depuis les années mille huit cent la mi ngi daw ba tey tant que daggunu loolu du ñu jug ci lu nekk le Mali nag est en de le faire le Burkina est en de le faire le Niger va le faire le Tchad va le faire la Côte d'Ivoire va le faire et Guinée et autres ces pays vont le faire mais on attend le Sénégal on attend le Sénégal parce que le Sénégal mooy la porte de l'Afrique ça il faut oser le dire mi ngi mel ni tey euh, euh, les quand le, le, le maître arrive quand les élèves sont là mhm. peut-être ñoom ce sont les élèves ouais. il faut que les élèves se mettent en place d'abord mhm. pour que le maître arrive et essaye de régler ça léegi pour empêcher que le maître leen ay Marie Le Pen a ngi fi voilà commence aussi wax ne que la la le Sénégal et la porte de l'Afrique déjà maanaam da ngay xam sax loolu à travers ñoom seen ay déplacement à travers donc yenn ci ay discours yoo xam ne bu ñu koy tenir sax il préfère la présence donc de de du président euh, français mu porter yenn combat yi euh, du président sénégalais au moins mu porter yenn combat yi euh, yaa ngi wax tout à l'heure Marine Le Pen donc wax naa ko ci début bi quest qu'elle vient faire au Sénégal quel est l'intérêt déjà l'importance ban voilà en fait ban njariñ la ñu amal quoi mm-hmm. moom mm-hmm. koo xamee ne que sëñ bi euh, euh, alaaj Mbaye Babacar Sène moom dégg naa ci benn pas euh, bu ma gis sur internet mu ne il ne voit aucunement intérêt wu Sénégal ci la personne de Marine Le Pen. parce que koo xamee ne que bu muy nekk ndaw bu doon gis photo nit ku ñuul ci photo ci photo ñi sax. Mm. da sentir ne moom dafa dafa bañ der der bu ñuul. Mm-hmm. donc qu'est-ce vient faire ici gis naa ko benn benn vidéo muy lekk ñàmbi suukar sànq quoi. di laaj la <laughs> non parce na ni mën nekk présidente France élection yi 2027 yi. Mm. parce que élection yi nii dafa am rang bu jege. rang bu kawee sax est-ce que mm-hmm. jëlul troisième xaw ma quatrième affaire yooyu mm-hmm. bu ñu jëlee bi ñu jëlee diaspora bi Sénégal moo ëppale li mu am am na 6 pour cent 6 pour cent français yi nekk fii. ñoo ñoo votel votel nañ ko. ci élection yii mu génn. d'accord am na 6 pour cent comme ni ñu ni ñi ñi waxee France diaspora. Mhm. am na ñoom it seen diaspora mooy beneen côté bi. exactement am na fii 6 pour cent. ça veut moom jàpp na ni terrain la bu nu war a exploiter fii waaw fii terrain la bu nga xamante ni war na ko mën a liggéey pour que d'ici cinq ans yi mu mën a am benn aura ak benn audimat bu dëgër bu ko mën a permettre mu mën a porter la France d'accord moo tax mu commencé def les visites dès à présent pour teel a ñëw raffermir donc pour mhm. la ñuy def dégg nga day ñëw ànd ak ay politique am xool naka lay taxawee xool naka la mën a def mhm. pour que mu mën a mu mën a mu mën a jàll tranquillement sama début koy wax maa ngi naan la Sénégal. Mhm. mooy dëkk bu nga xamante ni soo ko amee tu as l' soo ko perte tu tu perds l' Afrique. Mhm. Mhm. vu sa politique. sa euh, position stratégique sa position stratégique ak. lépp ak géo géographie beeg géopolitique bu nekk ci Sénégal beeg yëpp. Sénégal mooy dëkk bu nga xamante ni boo ko amee am nga Afrique. donc éveil boobu noonu ma doon wax sànq. entre le peuple j'ai rien contre ces peuples ces ces autres mais booy xool ci institution ci ci ci éveillé ci ci yëpp Sénégal dafa jiitu nawleem yooyu noonu ci yu bari mm-hmm. Mm-hmm. même ci en terme de réflexion réfléchi diplomatie diplomatie beeg yooyu noonu daf leen daw mm-hmm. donc booy régler régler le maître booy téye téyel le maître exemple bi may joxewaat encore foofu mooy Ebola bi muy am di ravager Sénégal déggoo fi kaaw Ebola te dañ ne woon cas dañ ne woon maladie transmissible la mhm. mais dégguñu kaaw Ebola Sénégal. Mhm. benn cas bi ñu fi déggoon mooy Guinéen bi dawoon rëcc. daw ñëw hôpital principal ñu faj ko. Mhm. mu wér ñu yebaat ko ci avion yóbbu ko kon kay garab yi ñu ngi woon fii. lu tax kon garab yi mi ngi woon fii. nangu na nan nangu ni kon médicaments yi vol yi médecins yi fii lañ doon wàcc. fii moo nekkoon seen entrepôt. Hmm. fii lañ doon denc garab yi fii lañ ko doon faje hmm. fii lañ doon yóbbu donc yow tu n'as pas fi ngay wàcc sa base nga koy nga koy tilimal di ko imbibé moo tax gis nga temps yi invité nañ Ousmane Sonko pour xool. Hmm. bu nu gisee ni mën na remplacer Macky ils vont dégager Macky mhm. et placer Ousmane Sonko. ak ak concept orientation yi muy joxe donte c'est quelque chose qui ne les est favorable. waaw bu nu gisee ni parce que ñi ngi waxtaan ak moom RFI mm. France 24 du nu jël n'importe bu la jëlee en audition rek c'est parce que réfléchir nañ ci yow un an. mais mais li Ousmane Sonko di prôné nekkul lu favorable ci français pas à 50 pour cent mais ci discours am il n'est pas radical à 100 pour cent. Uh-huh. et puis laaj nañ ko ko est-ce vous êtes contre la France. laaj nañ ko ko il a répondu on n'a pas intérêt à di benn animosité. yooyu la soxla en fait la la réponse est assez nuancée. merci ñoom aussi xam nañ ne nii ñuy doxee nii mënta wéy. waaw ku àll bisa ngi ñëw mu jeex. mënta wéy mënta wéy parce que ñoom seen seen deux yi seen deux leviers yi c'est la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Alassane Ouattara moo leen fi teewal ak le Sénégal bu Macky Sall. Mm-hmm. Côte mooy mooy pilier bi waaw pour le moment. waaw ah, pour le moment. <laughs> Côte d'Ivoire <laughs> économiquement. Mhm. boo xoolee Côte d'Ivoire n'est pas en guerre te boo demee da nga fekk ay ay ay armement ak benn infanterie bu énorme bu doy waar bu nu mettre en place parce que jàpp na ni à tout moment le peuple ivoirien. Mhm. day jug contre ado. et boobu bu jugee mooy benn tànk bi dem na. exactement beneen tànk moo leen dese te ñoom gis nañ ce qui se passe dans les rues sénégalaises et dakaroises que ni tôt ou tard. Mm -hmm. les sous peine de perdre tout. mais, comment faire pour alors tirer loxo France ci politique bu Sénégal. la mm-hmm. rue. la rue la rue. la de. la rue. <laughs> parce que ay kayit moo koy régler. Mm. toute révolution soit elle est militaire armée mentale psychologique morale wala voilà. mais culturel mais mais est-ce que la rue la est-ce que du dañoo war a jël suñu responsabilité am suñu souveraineté d'abord parce que balaa ngay naan damay jéema a euh, mën a sama bopp. pourtant ñun on a on a ah? on a on a un pays un pays souverain. voilà on a un pays souverain ci biir kàddu yi mais mais manque de souveranté bi. fi nga koy xamee moom mooy alors li nga xamee moom mooy euh, les les accords secrets yooyu nga wax tout à l'heure mm. ak euh, alors euh, la charte de l'impérialisme boobu nga xamee naka jot am na depuis les années dix-huit dix-huit cent maanaam il faut rupture am ñaar ci ñaar yooyu noonu waaw rupture musul neex rupture musul moo tax bi may wax la rue uh-huh. waxuma woon institution uh-huh. waxuma administration waxuma autorité mais mooy le peuple il faut que le peuple se se mën na bañ a xeex. Mm-hmm. mais le peuple se pour def une revendication mm-hmm. forte et très solide. à ce que yow miy jiite wala yow mi war a ñëw wala yow mi fa war a toog nga xam ne yaa un groupe derrière toi qui qui veille ba yow looy defati. danga koy teg ci yoon mais ñi ko mës a def dans le passé pratiquement ils n'ont pas réussi on se rappelle tout récemment. ay Sankara de de de Kémi de Seba. mi nga xam ne am nga c'est un panafricaniste. ay Natalia Yam voilà donc ils sont en train d'être pratiquement. parce que dañuy bañ ñu wax dañuy bañ ñu xam bu boo xamee Salma xam Mbaye Babacar xam keneen ak keneen xam Pam Ndiaye xam kenn keneen ak xam. mu def tâche d'huile bu defee tâche d'huile rek pratique euh, politique bi ak pratique boobu noonu day yàqu nit ñaa ngi commencé di xam li xew. Mhm. lii bu njëkk xamuñu ko woon. ñu ngi commencé di xam réellement lan mooy cause sous développement wu Afrique. ce qu'on a besoin présentement. avant peuple bi mais ñu am au moins. maanaam un homme fort su may wax un homme fort mooy un homme fort mooy un homme fort mooy un président de la république mm-hmm. qui ose soulever alors les les les les onze euh, euh, euh, accords secrets ak l'impérialisme sinon alors la charte de l'impérialisme ñu oser teg ko publiquement ci kanamu donc le le sénégalais sinon le le français pour lui mm-hmm. dire que on doit rompre avec ça pour ñu mën a continuer du ko wax de lu tax président bu ko wax avant ngay dem élection. Hmm. wala da leen gis ñoom ñëpp ñuy débattre sur le franc CFA. non non il n'accepte même pas donc. même les candidats opposition pouvoir ak ñoom ñëpp kenn du wax ci franc CFA ñoom ñëpp on te l'interdit d'éveiller le peuple. bis boo bis bu bokkee say programme wala bu bokkee say politique doo gagné élection yi parce que élection yi ci biti lañ koy gagné kenn du ko gagné fii avant la ñuy gagné élection yi kenn du ko gagné fii. loolu est-ce que du loolu moo moo tax euh, le président euh, Ousmane Sonko jamono ji yëpp ñu gis ni qu'il a un discours un peu euh, mu ngi mu ngi ciy xaw a def. ndox tuuti quoi parce que avant ay anti système. poigne bi amoon. voilà ci kii vis-à-vis des des européens. donc xaw na xaw na xaw na xaw na dal un peu. Assimi Goïta noonu la gagné noonu la noonu la noonu la gagné confiance bi Assimi Goïta def Mali njëkk nañ def coup d'état mhm. joxe ko. Mhm. kin ko jox jëlaat pour jël état bi dénk ko France ñu coup d'état ko. waaw. récupérer pouvoir bi toog soo ko wootee nag génnee accord yooyu noonu ak décision yëpp teg na le Abdoulaye Wade bi muy ñëw euh, au pouvoir en mille kenn xamul woon ni il sera nationaliste. ñëpp dañ jàppoon ne eh, idéologie ak politique française bi la la la yor mhm. bi mu demee ba en trois ans après mu dindi assemblée nationale bi changé gouvernement bi fa nekkoon commencé doxal vision panafricanisme mhm. dem jëli ay Thabo Mbeki Bouteflika Euh, Kadhafi commencé teg NEPAD commencé teg benn projet ak benn programme boo xamante ni kii nii États-Unis d'Afrique la jëm. te waxu ko <laughs> mais après la lan def dem créer Benghazi rey ko fii rey ak Kadhafi fii indi fi problème tas loolu yàq projet boobu noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. nag li ñoom li ñuy bañ les français ak les ak seeni alliés li ñuy bañ. Mm-hmm. mooy la jeunesse malienne la jeunesse burkinabé la jeunesse ivoirienne la jeunesse béninoise la jeunesse sénégalaise vont porter ce projet et vont libérer l'Afrique. en tout cas man di keneen ak <laughs> mais yàlla na yàlla def li ngay li ngay li li ngay wax ni incha allah ba pare mu nekk lu yomb mm. et que benn africain bañ ci bañ ci ñaak bakkanam ce sera peut-être pas trop possible mm. mais li koy jar da koy jar souvent. Mhm. merci beaucoup Arouna. merci Pape waaw ayca ñu bàyyi la merci Salma mhm. maa ngi remercier encore une fois invitation bi di di con di ko di kontaan da ngay ñëwaat yeneen ah, amul benn problème mhm. parce que il faut que ah, ñu il faut que ñuy wax nit ñi xam. il faut que aussi nit ñi mën a am benn éveil. parce que il faut ñu jógee ci ndóol bi mënul nekk les pays les plus riches du monde ba pare nekk les pays les plus pauvres. dafa paradoxal au Congo en Guinée yàlla dafa mel ni foofu la yàlla wàccee lépp parce que bu ñu gëmee ni l'Afrique c'est le berceau de l'humanité c'est normal que l'Afrique war a mën a am toutes les ressources mhm. du monde parce que